الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokk ñu ngi dellu si waat ci 1400 wala boog mille sept cent quarante deux bi awnillahi wa tawfiqi waaye di leen wax eh, ahlan wa sahlan marhaban bikum wa kullu aamin wa antum bil xayri di ñaan yàlla nangu ñaan yi ak siyaara yi ak eh, hadaya yi xam ne ñoo ngi ko doon joxlante ci suñ biir ak sadaqaat yi yépp yàlla nangu ko xam <clears throat> ak lu mën doon ak maaroof yi mboolem luy maaroof rek nit jox na la wakaal boo xam ni nekk ci bokk ci maaroof yàlla na la ci yàlla fay mel nag ni kon dangay gis bu ñu tabaskee ba noppi waaye ñu bañ a fàtte yi ñu sopp lool jaam bi bi fukki fan yi tàmbaleeg léegi nga di ko def muy allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar walillah alhamdu fii altine talaata àllarba bul ko bàyyi ndax fan yooyu mooy ayaamu tasriix rawatina nag ginnaaw guñ jullee boo jullee jullik farata ba noppi baat yooyu nanga koy baamu yooyu buñ koy fàtte am na solo trop ndax benn yoon la ci at mi benn yoon la ci at mi moo tax ñu koy fàttali euh, mbokk yi saa yu ñu tabaskee bu ñu bëgg tabaski ak bu ñu tabaskee ba noppi waaw euh, bis yooyu nag euh, kon ci lan nekk waaye bala ñu cee ñëw mbokk yi imaam yi démb dañoo laal point yépp waaye bala ñëw mooy li nu taqal démb mbokk yi noonu fexe ba setal ko tey gii bari na ñoo xam ni di bëgg démb ak fan yee buntu kër jàmbul ba ñu nekkoon doon fa jaay doon fa waajal seen tabaski dañu ko taqal lool wala marché bi te loolu daanaka léeg-léeg dañ ciy dem béréb boo xam ni Euh, day ñaaw lool war nañ ci sàkk pexe nag war nañ ci sàkk pexe ndax euh, yow muy gas ci mbedd mi oto bi fi jaar ponoom dugg ca mu toj ameel nga ko àq euh, kii ay bëtam gëmm bu fa jaaree tàbbi ci waaw gàtt bu fa jaar tàbbi ci gone gu ndaw gu fa jaar tàbbi ci wala mag mu ko gisul loru ca kon buñ kasetee pax yi bu ngoone nañ ko suul bu fañ buñ ko fàtteet bu ñu xëyee nii nañ ko sool ñun ñii wax ak yéen sax xam naa ni war na noo xoolaat war na noo xool ba xam ndax ah, xale yi ndax suul nañ ko wala suuluñu ko kon nan ko daal di jóg xool yi buñ ko suul ñu maasale pax yi dugal ci deret yépp ak yiñ ci war a dugg nga nga nga suul ko waaye bari na béréb boo xam ne boo fa jaaree tey jii wax dëgg yàlla boo xefee di nga teggi wala nga def ndànk du ñëpp nag waaye am na am na de waaw ñi ci defan ak njubatit ngir bari alal ah buñ ci amee lu musta amit day loolu taxul sax muy ak njàmbaar ndax sa moroomu jullit dong la sa moroomu nit dong la ñàkk na pexe nga teg ko lu mënul nga gàddu lu kàq lu mu war la joxe benn nga def ko ñett wala lu ko ëpp wala lu ko yées loolu yomb na mbokk yi yomb na de ki ci wor nit ba eh, dalowul ab ab ñawam ndax yow yaa ko war donc dina ko ñëw te xam nga yi mënoo ko ñëwoo ko wala yaa ko ko yaa ko ko war na jox xaalis bi nga di ko dawloo di ko dawloo nga réer ko mënutu laa jot te yaa ko tey wala ku ci war ku ne wallaahi di ko rëccu ba loo mën a defaraat defaraat ko ndax kat àq moom bu bare lu fu muy yóbbu boroom te du ko sa ora ndax lan mooy dañuy jël sa yiw yëpp yëpp jox ko gaa yi bu say àq bare waaw boo amul aw yiw nag nooy def bu àqee jeexul ñu jël seeni bàkkaar sëf la ko kon baril julli baril woor su diggante ak sa borom la waaye nit ñi nga amee àq na léegi sa diggante ak sa borom la respecté nga ko kon kon nag te kuy julli dëgg dëgg di woor dëgg dëgg jàpp naa ni doo gàddu yenn àq yi njubadi gi bari na trop trop trop xeeti woor yi waaw waaw njëg yi ak paas yi ren yii ni ñu mel doy na waar lool mbokk yàlla yàlla wéral ñi tawat ba mu fekk leen hôpital tëluñu ko walla ñu ñu fay ragal jarak yore fa ay malade yàlla yàlla fay fajkat yi ak fajkat yi eh, soxla yi yàlla yàlla fay leen mbokk yi bu ñëwee ci eh, xutba yi eh, imaam yi boo lu déggee xam ni ñu ngi naqarlu fi jamono toll ci mbon gi jéggi dayoo tudd yu bari yoo xam ni euh, buñ ko tuddee nga xam ni ñii kon ñu ngi topp xew-xewi jamono ji ñu ngi ci indi ay solution di wax yoo xam bu bu ci bu ci état bi jaaree mbon gi dina wàññeeku ndax munoo defar jikko yi léegi léegi waaye ci biir ci biir ñaari weer yii ñetti weer mën nga cee wàññi mbon mbon yu bari waxuma ñaari weer waaye ci semaine bi rek décrété léegi rek ni kat fii kat dañ fi lañ fiy tere boppum neen ci misaal teg ci ay daan teg ci ay takk der kenn duut fa jaar def boppum neen loolu loolu état comment état comment waaw neel bis ni ki tey kat tere nañu fi jaayum sàngara yàlla xam na ni ku ko jaay danga koy nëbbu loo tere ci mbirum nag am nañu ko fay jéem a def waaye yow teree la war kon am na yoo xëy jërul waaj jërul waaj bi birab sàngam daal moom ay ay eh, ay xale fa dëkk comme comme comme boo demee Tuubaa Mbàkke fi ñuy wax gaar bu ndaw bâtiment yooyu yooyu yomb naa régler benn benn béréb la rek tabax yu ñu kii te kenn dëkku ca ah? na ko ay commerçant moom na ko ay ay ay ay ay ay ay baykat moom soit ñu toj ko wala ñu wala wala wala wala ñu wala ñu sàkk ci maneen pexe ku ñëw fekk fa gar fekk fa ay takk der da ngay dem wala ku ñëw ñu jàpp la defe naa ni bala ñuy jàpp ñaar fukki nit kenn dutu ñëw yooyu dafa yomb rek la kon yooyu ñoom indi nañ ci ay solution yu mel noonu wax nañ ko ci biir xutba yi waaw avertir nit ñi ci euh, yiy bëgg ñëw yiy bëgg ñëw muy lan noo ngi ñaareelu fanu campagne législative yi muy <coughs> bàllu soñ mi muy député muy député yi <coughs> waaye am na ci ñoo xam ni jëluñu lépp lépp sëf ko état bi dañu ko séddale ñi ci am ay responsabilité ñëpp dala ko ci waajur wi jur doom ji génn ci biir kër gi ba mel na mel ci baax walla bon <coughs> jàngalekat yi ci ñaari wàll yépp sëriñ daal yeeg jàngalekat école yi kilifa diine yi ak seeni mbooloo waaw ñooñu ñépp kenn ku ci nekk gaa joxañ na la <coughs> uh, ñun ci joxañ ña ci def la ñuy wax ña ko ci deful waxuñu leen muy wax ju direct ju leer dëgg yàlla euh, te li ci gën a metti mooy ku yaa ngi yëg nii yow de yaa majorité ci réew mi yow mi yow jullit bi waaye dañ laa néewal doole te yaa néewal doole sa bopp ndax ñi nga ni ñoom ñoo lay jiite ñoom ay jullit lañu quatre-vingt-dix-neuf pour cent ndéem ëpp ko sax waaw gis nga ko ndax quatre vingt pour cent yi mbokk yi nañ ci taxawaat ñu Sénégal waaw euh, téeméeri nit ñoo fi gis juróom ñeent fukki ak juróom ay jullit lañu loolu ba senegal doon ne ñeenti million la wan waaw loola mooy ba senegal tolloo ci ñeenti million waaw tey Sénégal dem ci fukk ak juróom ñaar jëm fukk ak juróom ñett senegal Sénégal ci li ma jàppale quatre vingt wala quatre sax war na ci àgg waaw ndax ni jullit gi di yokkoo ñi dul jullit yokkoo wu ñu noonu ñi dul jullit yokkoo wu ñu noonu ndax ki takk ay soxna bokkul ak ki yem ci benn soxna waaw bu coppi ko amul eh, suñu mbokk yi ñoom eh, man bi may eh, jaxasoog ñoom nekk ak ñoom ñoom loolu la wax ñu ma moom ku ne ñoom benn jabar rek fekk ki ma ko doon wax noonu waajuram moom ma mag di chrétien moom it seen yaay rek la am ñu ñu ma ci xam ñëpp boobu leen xoolee benn son lañ am ma laa di gëm moom li mu wax kon ñaar ñi ni ñuy yokkoo du tolloo du tolloo mukk tolloo mukk kon yàqute jikko yi mbokk yi ba rey reye nu ñaaw yoo xam ni léeg-léeg nga dégg ko ni te la ci gën a metti mooy euh, dëkk bii di tuubaa ki fi nekk euh, leen fiy dégg euh, jéggi na doyo ndax ba euh, euh, ku sant Mbàkke sax di bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di wax ni ñoom ñoo rey jiw rey reen wu ñaaw rawatina ab xale ah jikko yàqoo ngi noonu jikko yàqu mi ngi noonu muy loolu muy jikko yàqu ab taw lay doon gis nga buy dëkk bi buy tawti seet jàkka jàkk Eh, fa ñuy sangoog ëtt yaag ah, néeg boroom kër yaag sëriñ baag kaw jumaa jaag fépp fépp fépp lay tooyal fépp ah lu tooyal kee déedéet déedéet déedéet dëkk bi kay rek jikko ju bon a ngi noonu jikko ju bon mi ngi noonu fu ne fu ne la mën a dugg fu ne la mën a dugg kon eh, man mi wax ak ñi koy dégg ak ku ne jàppal ni am nga ci responsabilité ndax bari na koo xam ne la mu war def defu ko nëbb lente bi nëpp nëppal bi ah mbokk yi ci ay dama dama dama dama bañ a juum moo tax du ma wax mu weer ma jële ko fu wér ci ay cas viol yoo xam ni ñoom ay mineur lañu ñi ñu violé ñaar téeméer ak yu topp ñaar téeméer ak nangam ci jenn jamono ñu gàtt yoo xam euh, loolu dafa na am na ñu ko jàpp ci yéen parce que fa ma ko jëloon moom fu fes la fan yi bi ñu bëgg a julli rek waaw lii nag day mujj explosé day mujj explosé ndax fu ne fu ne mbon gi ma nga fay gën a gën a ak mbon nag bu yàggee duutu doon lu bon ci nit ñi day doon loo xam ni ku naaw ku juddu fekk ko fi kuy fuy faatu bàyyi ko fi muy gën di yokk te moo gën a gaaw a yokk as ci lu baax ndax moom la bakkan gën a bëgg moom la iblis di iblis di liggéeyal yu noonu waaw mbon ga nag lay tàmbalee ca kaw ndax bu ñu demee ba wàllu liberté liberté liberté bi nga xam ni ñi di li sa àdduna ñoom moom lañu ñu bëgg a rey mooy euh, liberté am nga ko ci mun waaw kii daal am mun lu bon am nga ci liberté am nga am nga liberté ci lu bon lu baax nag déedéet lu baax moom am ci liberté ci lu baax dañ ko fiy tere ay allahu akbar waaw lu baax waaw kii bàyyi ko lu ko neex mën na koo jëfandikoo xam nga boo gisee ñu naan drogue diir héroïne nangam nangam jàpp nañ ci nangam lakk nañ nangam nag si mbokk yi te <laughs> euh, xam nañ xam nañ xam nañ fañ koy liggéeyee xam nañ fañ koy liggéeyee di wax dëgg yàlla ah, ñoom li ñuy xam mbokk yi euh, état li muy xam li muy xam moom maara daytu daalik waaw yow yaa ngi xam fu muy liggéeyee ba noppi ah eh, gis eh, eh, ñu ni léegi lañuy dañuy tere ku màndi di dawal buñ ko defee dañ lay jàpp ah léegi lañuy tere dañuy tere nga yor sa butéelu sàngara ñëw fii ci rond-point bi léegi di ko naan ñu koy tere waayo Eh, la Youssouf Ka Youssouf Ka doon wax rek oustaz maa ngi koy nuyu ni déedéet nañ dem fa robinet ba nekk rek bu buñ ko tëjee nee na fu bari fuñ bañal mu tooy duutu tooy yow mënoo fee jël sàngara ci réew mi ah dañuy ba tere ko tox ci yenn lieu yi waaye mënoo fee jële tox déedéet duñ ko fi jëlee ko fi jëlee ndax lan am nañ ci am ay milliards teet eh, am na luñ bëgg ci nit ñi loo xam ni sàngara si da ciy jouer rôle bu mag foofu la foofu foofu la jamono toll mbokk yi mu mel ni yàlla la ni jamono daal bëgg mu baax nit ñi ko jamono du fi baaxe foofu lañ toll léegi dañ jukkonte insha allahu salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarimi silmilan alastihadi bi furudin wa sakartuhu li qad sahani li watani bihi nafa ma